Abdou Faty ñu ngi lay nuyu. maa ngi di fay général syndicat des enseignants libres du Sénégal CESU authentique. Mhm. waaw dañ koy euh, dooreek ak budget éducation nationale niki euh, démb la euh, le ministre bu ñu dénk wàllum éducation nationale Cheikh Oumar Anne doon défendre projet budget 2023 bu département budget bi toll na ci ëpp na 803 milliards ci autorisation d' engagement ak lu ëpp 778 milliards crédit de paiement bu ñu sukkandiku ko ci ministre des finances Moustapha Ba budget yokk na lu toll ci boo ko méngaleeg budget euh, bi ñu voté woon atum euh, mille vingt deux mu doon quatre vingt dix virgule six yi nga xam ne ci budget bi euh, dañ koy jagleel dépense personnelle yi li ni mel nag ministre bu ñu dénk wàllum finance Moustapha Ba moom jot na ko assumer waaye boobule hausse te tey boo xoolee sur le terrain amul lenn li nga xam ne dina fa feeñ. état bi yokku na budget éducation yokku na ba pare ministre des finances wax na ko assumer ko mooy budget surtout personnel bi yokku na personnel bi nag intrant pédagogique la wante même li si des li si des li ñu constaté année bu nekk li si des sax day yokk mais du ñu gis njeexital bi lu tax du ñu gis njeexital bi euh, ñun dañu foog ni euh, ministère de l' éducation dañuy tëñëx tëñëxee tëñëx si lu bari moo tax du am efficacité du am efficience moo tax également du méngóog résultat bac lu tax ñuy tëñëx tëñëxee soo jëlee école bi ay défi yu baree bari la am mooy défi wu abri provisoire défi wu enseignant enseignant yu manqué défi yu environnement scolaire défi yu également enseignement apprentissage ak curricula hmm. donc ñoom dañuy jël yëpp sëmbaxloo ko dem gis étranger yi tubaab yi ñu jox leen xaalis ñuy def ay réformes sëmbaxloo ko école bi du am benn njeexital hmm. moo tax ñu ne waa yëf yi yokk na mais amul njeexital li ko war mooy tëñëx tëñëxewu état bi te état bi lu pour ñu génn si de notre point de vue pour ñu génn si mooy dañu war a noo ko sam suñu bopp bañ a bari ay objectif mais si misaal ren moom li ñuy li ñuy jóg mooy lii nekk école ñax yi nekk si àll bi yëpp école abri provisoire yëpp ren dañuy jël budget lu si bari ko consacré ko ba pare xool également ñi liggéeyee Sénégal ak ñi mën a joxe. ñëpp jàpp si pour ñu régler ko sur deux ans ou trois ans définitivement mm. beneen at bi ñu jublu si làkk bi ñuy jàngale ñu jublu également si pédagogique beneen at bi ñu jublu si intrant pédagogique mais suñ ko defee xëy na ah, suñ ko defee et gëm nañu ne également dina am njeexital dina am également changement mais tëñëx tëñëxee la ñu nekk dañu yokk budget bi ci ñaar téeméeri junni million wu junni budget bi du dem fenn dañ koy tëñax tëñaxee mu dispersé wu am benn jeexital te loolu c'est dommage. at bu jot aussi dañuy nemmeeku ni enseignants yi itam dañuy manqué surtout boo demee ca sud te pourtant euh, enseignant nekkul li nga xam ne moo war a manqué fii ci Sénégal. waaw gis nga euh, waa COSYDEP nga xam ni dañuy def étude bu scientifique nee nañu effectivement Sénégal dafa manqué trente mille enseignants te muy dëgg muy dëgg gis nga Dakar gii da ngay gis enseignante bu jigéen boo xam ni dafa war na lor jël congé dañuy tëj classe am au sud soo jëlee sud du pays nit ñi bëgg nañu école nit ñuy dem école passé na cent pour cent euh, foofu tamit dafay manqué te pourtant yàlla xam na ne ñooñu xaaruñu sax état ñu dañuy ñëw tabax ay ay tabax euh, ay ay école état wu Sénégal nag daawaati géej dafa reconnaître enseignant manqué na nee na su juróomi at day jël cinq mille enseignants mais benn at lañ ko def politiser ko def si affaire u tappale ba at ba jeexee ren jëluñu sax lu mat ña juróomi téeméeri jàngalekat mooy ñoom gëmuñu ko ñëpp xam nañu enseignant manqué na mais ñoom dañ koo gëmul ñëpp école yëpp am na ay planificateur IEF yëpp am na ay planificateur xayma nañu yëpp mais ñoom ñoo ko gëmul amul volonté hmm. ñoom daal jël seen xaalis yóbbu ko ci ay institutions ñàkk bopp moo leen gërël que jublu si école sénégalaise bi nga xam ni njeexitalam mooy Sénégalu ëllëg bu naat. Mhm. waaw loolu nag lañ leen di woo mooy na population yëpp xam ni Sénégal ñu ngi jël alal bi di ko orienté feneen au lieu ñu orienté ko si recruter ay jàngkat yu doy si recruter ay fajkat yu doy. mais lan moo tax aussi euh, enseignants yi di manqué le plus souvent euh, au niveau du sud sud la enseignants yi gën di manqué. waaw au niveau du sud li tax enseignants yi gën a manqué. du problème mu rigueur parce que ñu bari dañuy bëgg a dem au sud ñu bari dañuy dem compétition sax dañu am mais dafa fekk au sud taux scolarisation taux taux brut de scolarisation bi dafa élevé plus de cent pour cent la mooy ñoom ñëppay dem école. waaye ñoom wax dëgg yàlla école dafa nekk seen biir xool bañ na ko ba ñoom sax ñoom dañuy tabax ay école ñuroowul ak yenn région Sénégal yoo xam ne pour dem école moo tax demande bi moo supérieur à demande bi dafa am doole ba nga xam ni foog ñu def si focus yóbbu fa jàngalekat yu bari te jàngalekat yu bari sud la ñu bëgg dem du question dañ fa bañ a dem wala bañu ñu fa dem mais dafa fekk rek foofu ñëpp bëgg dem école école yëpp fees moo tax foog ñu dooli jàngalekat yi foofu. Euh, provisoire euh, nguur gi euh, ñoom ñu ngi koy xeex Euh, ca wet ga Cheikh Oumar Anne nee na abri provisoire euh, dina woy di amal ndax te évolution démographique bi moo ko waral euh, donc yenn localité yi il faut ñu def ay abri provisoire te pourtant ca wet ga am nañ benn programme bi nga xam ne day xeex abri provisoire tàmbali na sax ci yenn localité yi ndax amul foofu benn paradox mais paradoxe la ak manque ambition. Mm-hmm. loolooy manque ambition dëkk boo xam ni ñoom ñëpp ñu ngi coow naan soixante dix pour cent des bacheliers ay littéraires lañu du ay scientifique tax ñuy nekk ay scientifique élève boo xam ne yow école ñax ngay jànge ba nga dem lycée jàng école ñax. Mhm. type A essai microscope sax doo ko gis nga bëgg a ñëw développer esprit scientifique. Mhm. loolu mën na fi am ñoom ña manque ambition dëggantaan la. Mhm. xam nga manque ambition mooy lan nga nekk si dëkk boo xam ne. yalla may na ñu nañu presque jumtu euh, ressources naturelles yu bari soo demee dans le Kédougou mu am fa ay sociétés yoo xam ne nee nañu ren dañu partagé trois cent milliards dañ ko séddoo ñun ñii am ñàkk fayda ñàkk fayda boo xam ni société yi nekk suñu dëkk di fi def lu leen neex mënuñu ñu ñu defal ay école yu baax mënuñu ñu defal ay centre de santé yu baax mm-hmm. mais loolu rek la ba pare également lii am dans le Fouta mooy ay doomu Fouta nekk diaspora bi di tabax ay écoles yu pare di tabax sax écoles yoo xam ne day am ay ay ay logement yu enseignant yooyu mënuñ mën nañ ko def fenn nañ ko organiser rek suñ ko organiser plus ñi fi nekk di exploiter suñu suuf yàlla xam na ni en deux ans ñu résorber yëpp mais manque volonté la ak école day moo ne ni école c' est le de leur souci ñoom leneen moo leen tax a dëgg la ndax ren sax lu ne gis nañ ko gis nañ fi sax ay xale yi toog ci ay ay xeer. en plein air muy euh, dëgg muy dëgg te bañ ko fi coowee une semaine après rek affaire yëpp réglé wu. Mm-hmm. mooy dañu ñàkk organisation ba nga xam ni. Euh, ak ñàkk volonté ba nga xam ni yu ñàkk fayda yooyu yu ndaw yooyu bàl leen ma si kàddu yu ndaw yooyu sax mënuñu ko régler loolu rek la. Mhm, dëgg la euh, ci plénière yi vote budget éducation nationale euh, député yi ñoom jeex nañ teg nañ baaraamu jox teg nañ baaraam fi nga xam ne mooy metti ci njàng mi benn ponk bokk na ci qualité enseignement yi ci yenn gox yi lan mooy solution bi. waaw qualité enseignement bi ñun ñëpp xam nañ ko tey enseignement wu langue bi ñuy utiliser pour jàngale montrer ses limites par conséquent nañu def comme dëkk yu am fulla ak fayda yëpp mooy sunu langue yi nga xam ni éprouvé nañ ko sunu langue yi nga xam ni essayé nañ ko mu dox nañu jël sunu langue yooyu jàngalee ko xale yi suñ ko defee ñu jël yeneen langue yi def ko ay langue seconde bañ ko essayé si dëkk yu bari dafa joxe ay résultat probants léegi lan moo si des volonté politique lan moo si des am fulla fayda euh, am fulla ak fayda jël ko suñ ko jëlee am qualité mais wax dëgg yàlla ni ko Cheikh Anta Diop waxee rek bugg a développé si langu jàmbur da ngay nax sa bopp. Euh, monsieur Faty ba école ubbee ba léegi yéen jàngalekat yi euh, yëngool yëngaloo leen dégguñu leen ci dara. foo leen toll seen accords yi ak nguur gi. waaw accords yi ak nguur gi comme ni nga ko waxee ba nguur gi demoon wax waxeet ñu dal si kawam nguur gi ñëwaat nguur gi ngi déroulé am accords yoo xam ne wax dëgg yàlla nguur gi commencé na si def ay jéego comme DMC yi commencé na si def ay jéego comme li ñu waxoon commencé nañ si def ay jéego wante mu desoon yoo xam ne également ñun am na solo. muy question décisionnaire yi dafa am solo muy question contractuelle yi dafa am solo muy question également mouvement national ak ministère de l'éducation dafa am solo hmm. saisir nañu nag ministère de l'éducation saisir également ministère du travail ak ministère de la fonction publique mais boobu ba tey ñu ngi tendee fal li ñu mën a wax rek mooy na jàngalekat yëpp xam ni nañu préparé wu taxaw dafa am question yoo xam ni yi ko gën a metti réglé nañ ko méttiwul mais ministre yi ko géré ñu ngi di di di tappale di def lu leen neex loolu duñ ko nangu fii ak janvier ministre de la fonction publique ministre de l'éducation ak ministre du travail suñu toogaloog nit ñi fii ak janvier dañuy déposer préavis de grève. d'accord comme euh, mun nañ xaarandi année scolaire bi euh, dina am ay yëngu-yëngal. waaw ak euh, comportement bi ministre yi am. waaw ah, suñu moytul année scolaire bi dina am ay yëngu-yëngal. Abdou Faty ñu ngi lay sant di la gërëm. di fàttali yaa di secrétaire général syndicat des enseignants libres du Sénégal. waaw